يا رسول الله في كل حين لك oh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki Sénégal ah xew-xewu diine bu rëy amati na nag xew-xewu diine boobu moo di ban xew-xew mooy groupe association soppay nabi groupe association soppay nabi ñoo leen di yëgale seen gàmm gi nga xam ne si nii daanañ ko amel chaque année gàmm gi nag jàpp nañ ko kañ le 29 septembre 2024 incha allahu rabbi présidente bi présidente bi nag nekk soxna Ami Ndiaye président bi nekk Serigne Pape Ndiaye ñoo ànd ak waa groupe soppay nabi yëpp di leen yëgal seen programme programme bi nga xamné ci ñi ngi koy abal dañ di nek 6e édition ba tax ne programme bi ni lay tédé bu ñu xëyee suba 8h30 demi ba neuf heures danañ fa wàccee ay kamilu alquran bu ñu demee ba midi jot nag jàpp une heure danañ berne yi nga xamné ci né moy gan yi jógee ci gox goxaat yi ba tax ne programme bi ñi ngi ci rando xamaa Serigne Modou Kane ak haji Gille Fall ak bay Aline kan ak Soxna Fatou Gueye ak Serigne kala Kane ak Serigne moulay ni saw ak Serigne Papa Dia média ñooñu la ñuy rendu hommage ci programme bi ba nag ñi ko paree ne a ah, borom xam-xam bu rëy bi nag kooku mooy kaana mooy soppay waa Louga xaritu gaayu baax yi kooku mooy kan mooy Serigne Cheikhou Seck ibnu Serigne Médica Seck borom yàlla ne moom la ñu paree ne bis bi ba tax na mari bi mooy Adja Aïda Diop ak soxna Bintu Dia ñooñu la ñu maree bi ba tax na programme bi buñ demee ba ci guddi gi daal ki ne si nii mooy tijji programme bi mooy Serigne Mboup ah nabiya bu mag bi moo koy tijji ak Mouhamed Silla di ci woo ba tey waa daayira mutahabbina fillahi ba tax na programme bi ki nga xam ne si nii moo war a gàmm ci programme bi daal mooy Oustaz Dame Sall ah ay waay ay waay ay ku ko tardé tardé foo mën a nekk sa xol du neex ba tax na tey ki nga xam ne si nii moo war a waxtaane programme bi mooy Serigne Seexu Seck ibnu Serigne Madika Seck borom yàlla nee na mo wara waxtane yi nga programme bi ba tax na bokk na ci jànkat yi ma dem ba jaw addi ci wo ba tay wa daire soppe serigne salih yeb tax na tey bokk na ci jànkat yi ba tay serigne ale samba ba tax na tey programme bi na ki nga xamne ci ni moy invité d'honneur bi moy maire jili lo maire bu ngi di la moy invité d'honneur programme bi ba tax na programme bi ñu ngi ci wo maire mustapha Diop ba tay di ci wo oustaz Cheikh kebe mi nga xamne ci ni moy taxaw wacce kamel bi ba tax na di ci wo imam yi nekk ci kon bi yeb ba tey di ci woo ustaas yi nga xam ne si di ñoo nekk ci koñ bi yëpp ba tax na programme bi ñu ngi ciy woo waa kër Seex Paati Sarr Birina Sarr ba tey ñu ngi ciy woo waa Nguraan Seck ba tey ñu ngi ciy woo waa Ngiñaax Fall ba tey programme bi ñu ngi ciy woo waa Colom ba tey programme bi ñu ngi ciy woo waa Touba ba tey programme bi ñu ngi ciy woo waa Jëleer lu si la ba tey programme bi nag ñu ngi ciy woo waa si waa ci leen si la ba tey programme bi ñu ngi ciy woo waa Ngidila ak waa Baqiya Ja ba tey ñu ngi ciy woo waa ci leen jekki naa la ba tey ñu ngi ci woo waa nangur njaay batay di ci wo bepp jankat bu nek ci biir Louga rek ñu lay wo ci programme bi di ci wo batay wa ak liko war programme bi nag kep ku bëgg xam fa la amé gannaaw raay lay doon ci avant ngay ag rek ci poste courant bi ci côté bitigu Ami Njaay rek insha allahu rabbi bo fa ñëwé rek da ngay dégg jang yi wala nga gis baat bi ba tax na tay programme bi kañ lay doon le 29 septembre 2024 insha rabbi ñu si ak liko Madina.